benn bés yéesu dina ñëwaat ci kaw suuf nu mu ko waxee te dina boole yépp njabootam ñu gëm ci moom ñu dund ak ñi dee te ñoom yépp dañu booloo dem tase ji ak suñu borom ca asamaan te dinañu nekk ak moom ba faw lii lañu gëm wante ñi gëmul almasi bi ne seen musalkat yàlla dina leen atte wante comme xamuñu ban bés lay ñëw na ku nekk dëgër ci ngëmam te bañ a tayal